loi bi nii la tëddee ci ni ñu ko doxalee gisuguma ci faayu conseil constitutionnel ci sama wàllu bopp parce que lañ ko wax na def. moom la def noonu la def am na nag fu mu fu ma d'accordul ak moom wax na wax naa ko plusieurs fois par exemple ñun ñoom ñoom def dañu def seen décision ni ku déposer sa parrainage ñu càmbarko bu njëkk yoon bu njëkk bi ci premier tirage bi bu dee da nga war a régulariser dañ lay may 48 heures dañ la ko war a notifier lan moo waroon xew dañ la koy notifier nga 48 heures après nga indi sa clé déposé waat ko ci greffe bi ñu denc ko ba jour bu ñuy defaat ti ci deuxième vérification mais dañu may ñu ñu tiré woon le de décembre dañ leen may ba le ba le 11 xaw ma le non le le 8 ñeneen ñu may leen suñu genre gi nga xam ne le 3 la ñu le 5 la ñu tiré ñu may ñu leen ba le 8 c'est-à-dire ils ont donné 5 de plus au premier. rupture d'égalité et c'est inconforme à leur décision donc man d'accord uma ci conseil constitutionnel bi ni ñuy doxalee d'accord uma ci ni ñuy tirer parrainage bi parce que parrainage bi c'est pas le conseil constitutionnel mooy vérifier c'est un opérateur sage yi ñoom dañu ñëw toog di seetaan benn opérateur fële mooy ñëw dugal ay clé di génne ay clé di wax voilà le résultat te lu mu wax moom mooy dem donc moom mooy juge en réalité mais loolu gars yi dañu waxante dëgg ba ma koy dénoncer ba ñuy changer loi bi ba ñu jógee assise national nangu seen loi dugal ay parrainage par les élus dugal wàññi parenage bi ba ma dénoncé nii. dialogue national au lieu de assise nationale. de dialogue national dialogue la woon waay. waay ba ñuy génne ba ñu leen di nii ni ñu koy doxalee parenage bi dëppoowul ak yoon nañ ko changé mais dañ ma doon rey ne parce que naruñu am parenage moo tax ñuy kaas. lii du fi gulee temps 2015 2019 nii la demee législative yi nii la demee législative yi daaneel nañ ci liste pêcheur parce que dañu ne chèque normal la indi chèque bu mu tiré ci bu ñu tiré ci seen compte au lieu de chèque de banque de banque d'accord xanaa lool moo gën a graaw <laughs> léegi réaction Karim Wade bi nag noo ko jàngatee ba mu la la yow Amadou Ba moo nekk sa ginnaaw xam nga moom d'abord <laughs> ku Qatar nekk sa ginnaaw nga nekk candidat France mu defal la décret sur mesure. ah bon ah eh hmm. mais nga am problème ñu génne la. c'est commandité le décret. le décret d'un se 16 janvier janvier oui. ah c'est nga xam ne yow yaa ngi def sa nee nga yaa ngi def sa renonciation kii kii loolu loolu la ñu waroon wax. loo xam ne le timing le timing mais mais parfaitement. Ah. premier ministre français yi ci premier ministre euh, le premier ministre français le nouveau premier ministre français Attal bokk na ci yi mu njëkk def mhm. nee na moom mu ngi renoncer le le le le vingt xaw ma ñaata octobre mois de deux mois après euh, ou trois mois après mu ngi am son décret euh, le 16 janvier à point nommé au moment où justement ñun ñu ngi nii on va déposer un recours et qu'il a besoin d'un soi d'une soi-disant preuve loolu mooy problème wax ci nekk fële Qatar loo fa nekkee ci ci yan anam nga fa newee loo fay dundee loo fay def naka nga fi naroon ñëwee ak bu ñu xamee Qatar rôle bu muy rôle bu muy joué dans le monde entier et particulièrement ci pays yu fragile mel ni Afrique beneen bi mooy Amadou Ba cest à que sénégalais comme ñoom dañu gëmul seen bopp gëmuñu nit mun na nekk libre indépendant dañuy jàpp ni lépp loo def dañ la ko def loo mhm. man dama nekk membre fondateur de la l'APR Moustapha Diakhaté wax na ko keroog nee na bu APR bu fa ñoom Thierno Sall ne woon mun na nañ nekk premier ministre ak lu ne nekk membre fondateur de la l'APR responsable national des cadres de l'APR ma jàkkaarloog président la république mu bëgg ma defloo benn affaire bu gën a yomb parce que yéen ñu bëri yëgu leen ko woon muy signé benn affaire rek après continuer même bu ma ci amulee <laughs> dara continuer di nekk ministre pendant sept ans combien de mois de salaire la ak combien d'avantages nga bañ loolu nga bëgg a nekk xuusmaa koo xam ne moom nangu na nekk xuusmaa ñàpp <laughs> ah léegi-léegi bi tey may laaj naa bàkk suma maam man suma maamaati maamaati maamaati maam yépp amul benn ku ci mës a nekk pion suma doom yi tamit kenn du ci nekk pion dégg naa lu tax ma wax loolu sax dégg naa démb assemblée gars yi ñu may jéem a provoqué di wax wax yu ñaaw yu ne. Mm-hmm. <laughs> dégg ngeen ko presque agressé nañ la fa presque non di wax ay affaire yu ñaaw yu ne. yoo xam ne ci démocratie assemblée nationale dañ fa nekk kenn bu fa wax dañu wax ni les sénégalais sont nés libres et égaux. égaux oui am ku fa toog devant une assemblée boo xam ne. loolu mooy yéen est-ce que am ngeen dignité qu'il faut pour s'en prendre à des juges quand vous at là à à entendre ñuy wax ay maccudo de maccudo <laughs> jaamu jaam jaamu jaam ñun fuuta ma wax mus mus ma yegg si foofu ma wax fuuta ku ma fa bokkalul doo ku baax sama côté day nag ak sama côté baay mais ce nivellement kenn ci kenn dama ni j'ai jamais voulu répondre am na ñu ne dañ ma jox xaalis yooyu j'ai jamais voulu répondre à ce genre de provocation parce que ñooñu noonu la ñu doy waaw man nag yàlla dafa def ma juddu xam sama bopp am dignité boo xam ne sénégalais yi reconnaître nañ ko xeexal naa leen xeex bu ne plainte eh. bi nga annoncé démb ci assemblée nationale contre ñoom Woré Sarr euh, euh, Mame Diarra Fam foo si toll. contre un groupe de députés daal. waaw <laughs> mm-hmm. ci plainte bi d'abord damay gërëm di sant sama mbokk député wu yu ñëwoon. jàppale ma jàppale ma. ma ràññee ci Abba Mbaye Babacar xam ne way juróom bu góor ñoo bokkoon nekk ASECNA. ku ma xam-xam xeex ya ma fa daan xem te xañ waa asak yëpp xam nañu xeex ya ma fa daan xeex may jóge asak naa di dem Komor dañ ma ay jigéen ñi dañ ma lalal sëru dénk ndax fu ñu bëri sumee seen tubéy toog dama taxaw donc Aba Mbaye maa ngi lay nuyu di la gërëm il était venu Sidi Diouf Seydou Diouf du Benno Bokk Yaakaar mais surtout ñoom Guy mari Sagna moom ngeen gis ngeen ni moom moo njëkk taxaw di jéem a nangu ko xeetu ndaw si <laughs> sëñ Cheikh coro Mbacké Mbacké hmm. ak Birame Souley moom mook Birame Souley moom jot na encaissé benn coup bu ajaawoore bu ginnaaw hmm. xam nga <laughs> république c'est triste ñoo xam ne am nañu mandat deux a ri mais lu la république à terre hmm. et c'est ces ces gens là ces gens là qui veulent s'ériger en juge d'autres juges Les juges peuvent être condamnables ah moi j'en sais rien je m'en lave les mains c'est pas mon problème mais gisuma en l'état actuel mais ces gens la qui passent leur temps devant le monde entier à rabaisser le Sénégal di saaga di xaxar am na ci ñett ñeent juróom fukki député yoo xam ne amul lu teg lu tax ñu nekk ci liste bi lu muy parce que dañ leen jël pour saaga ak yàq deru nit ñi ñooñu de grâce sénégalais yi de grâce bu ngeen di élire prochainement ak lu munta doon tee leen tànn loo xam ne du ñu yóbbu ci yii parce que lii mooy indi leneen di indi leneen di indi leneen di indi ay député di taxaw ne article cinquante deux xam nga fu mu ñu jëmee coup d'état constitutionnel parce que amul beneen prox ndoll mm. te loolu la fi IBK jéemoon gis ngeen fu Mali toll loolu la fi Alpha Condé defoon gis ngeen fu Guinée toll bu ñu foowee suñu constitution bu ñu yóbbu assemblée tamit ñoo xam ne amuñu fa seen place parce mm-hmm. que le peuple sénégalais askanu Sénégal dafa diñ fier ay nit ñu yiw lañu ñu baax lañu ñu tedd lañu ñu yaru lañu ñu bëgg ñu ñu ñu respecté ñu à travers le monde ñoo doon victime ñoo doon vitrine démocratie dans le monde la boobu ngay wax ñoo ñoo voté ñu nekk assemblée dañuy voté liste mm. loolu tax mer mer rek voté liste. <laughs> waa intercoalition xam nga sànq wax naa sama gars yi ñoom waa ñoom su Souleye yooyu gërëm naa leen waaye waa intercoalition wàllu yeewu ils ont une lourde responsabilité loolu tax ñun mosuñu bokk ci coalition yooyu pour ne pas porter la responsabilité pour ne pas am ci responsabilité ci loolu bu ma terminer lim yooyu ma lim gërëm Thierno Bocoum ak Abdoul Mbaye ñoom laa gis ñu wax ci mbir mi ñu bëri ñeneen homme politique. ñu ngi wax na assemblée bi wéyal enquête bi <laughs> d'abord gisaguñu début preuve mais ñoom waroon nañu wax ci feebar gàngoor bu metti bu dab assemblée bi ndax assemblée bi am na crédibilité sax pour def dara ci réew mi. d'accord tey yaa ngi wax de députés yu bëgg juger des juges tey jii kan moo cautionné li ni mel. parce que chaque jour ces députés là euh, de la mouvance da ngay dégg ñu ne lu président santaane ñoom loolu lañuy def. mais loolu mooy problème bi sa à dire que lu bëri jaar na fi lu bëri jaar na fi xam nga damay dégg ñu naan dañu bëgg setal suñu ñoom bu ñu bëggee lay ñu dañu dañu waa waa Benno dañu bëgg setal suñu candidat. <laughs> Amadou Ba dañu bëgg a setal suñu candidat. parce dañu ne loxoom si. ndax loxoom di ci. noonu lañ ko bëgg a setalee. d'accord. rapport euh, IGE bi. Mmh. la l'affaire Petrotim. taxaloo fi président. oui. ak ay ministre oui. ak ñeneen. Mhm. demul BBC jóge fi ñu Sénégal yëpp wàcc suñu mille Sénégal yëpp réclamer leen commission d'enquête parlementaire lu tax boobu setu la président de la République <laughs> ba tey setugu ci mu ngi dem setugu ci mhm. ay tappale la. te loolu tache noire la ci gouvernance am. déedéet dama ni lii ñuy wax ni dañu bëgg a suñu candidat ay lay la. lan lan mooy objectif bi. luñ ci créer crise constitutionnelle pour jéem a reporter élection yi te buñ ko defee. Mhm. kon problème am na ci réew. quel est le but am na nag ay gaawu société civile yu ciy wax depuis même avant élection yi nañu kii nangam nangam le but visé c'est de réintroduire certains. comme comme waa PDS ñoom dañu bëgg seen candidat na bokkaat même bu ñuy jël deux ans pour loolu waa APR peut-être jël débarrassé wu seen candidat boo xam ne doyatu leen wut wut keneen puisque dégg ngeen ñu ngi koy ŋaañ ba pare peut-être faagaagal aussi ki nga xam ne mu ngi candidat la mais mais mais mais mais mais mais mënul def campagne faagaagal ko définitivement mm-hmm. donc ay coalition en <laughs> temps pour juger Bassirou Diomaye Faye pour l'écarter définitivement coalition d'intérêt moo fa ne <laughs> ci sama gis-gisu bopp coalition d'intérêt moo fiy dox ñun nag ñun faalewuñu x faale le droit parce que ñoom ñoo indi réew mi ba fii ci seeni i cuune ak seen i doxalin yu bon man du ñu naan ay non di bëgg bu ñu bëggee yàq parce que ñoom loolu la ñu xam joxe ay mallette teg ay diil jox nañ fi mallette ba jox fi ay mallette c'est jàpp ne tout le monde est corrompu di wax ay kii. moi je me dis ñoom ñooy. Alex Segura ñoom ñoo wax ñoom ñooy wax affaire waa man je vous dis bu ma nekkoon ministre pendant sept ans encore a raison de au moins trois millions et demi par mois rek waa ji mënuma jox lu ëpp loolu ak deal yi ma fa mënoon deal parce que ëpp ñu ma fit nag. <laughs> gënuñu ma fulla bu fekkoon rek xaalis moo ma tax a jóg ma deal comme ñoom du ma xaar ñu may ma. ah léegi. day leer quoi. <laughs> ñu dugg ci débat programme bi. nañuy devenir milliardaire. comme ils sont devenus milliardaires. xam nga yoon bi bu baax. non ñëpp a xam yoon bi. waaw mais Pierre su waxee ci deal boobu loolu moo ñuy permettre sax. le le le rapport de la Covid si mille milliards de Covid bi. Oh. pourquoi enquête wu ñu ci. te cour des comptes mu ko teg ba tey procureur yi naan non tey ëllëg pourquoi waxuñu procureur. mbir mi dafay mais yow député en tant que def. ñun ñaata rapport la ñu dema déposé man taluma sax répété ya ñaata demande de rapport laa fi def depuis même avant ñu nekk député ci rapportu IGE bi man ma Mamadou Lamine Diallo Abdoul Mbaye déposé nañ ci demande d'ouverture de d'enquête parlementaire def nañ ci ay plainte devant la justice mais pourquoi ñoom defuñu kii nii kii je dis aux Sénégalais bu ngeen bëggee réew mi changer dañu war a bopp dañu ne jën ci bopp bi lay nëbee bopp bi lañu njëkk a tagg bu ngeen bëggee nag bopp bu bu bu mot bopp bu am ful ak fayda gëm réew mi mën a sacrifier et mën a teg réew mi ci yoon maa ngi nii suñu suma naataango yëpp concurrent yëpp am na ci ñoo xam ne nee nañ lay tey xamoon nañu ni amoon na ñeneen ñu am nationalité waaw am na ñoo xam ne nee nañ leen yëgoon nañu lii dañu waaf man kañ ci gënoon ragal laa wax ni dafa am nationalité quel que soit ce qui m'arrive xam nga lan moom mënoon am hmm. xam nga lan moom mënoon am hmm. conseil constitutionnel ni Thierno Sall mii li mu wax ni nekkut ma ñu discrédité wu sama crédit yàqu man crédit réclame le seul héritage que je laisserai à mes enfants c'est ma crédibilité d'accord yaa ngi wax wàllu yi ci au niveau bi de notre état tey jii tey gis nañu démb ñu ne euh, corruption indice de corruption bi Sénégal ba léegi mi ngi si zone rouge bi et c'est-à-dire que dañuy wax corruption ci à un bas niveau mais fi mu gën a foore mooy ci kaw ci dans notre état. mais corruption au de corruption Sénégal kenn yaakaarul woon mu wàññeeku xam nga dama fi wax léegi rapport Covid mille milliards. loo xam ne yabuma benn pays Afrique nag waaye dama ne pays Afrique yi ñuy gën a xeeb ñun kenn mënul jël dem banque di def ay chèque surtout ci jamono Covid bi di def ay chèque Cour des comptes moo ko wax de. Mhm. def ay chèque <laughs> jël tey cent million demee cinquante millions ñu jox la ko ci ay mbuus. nga ne dama ko ay di ko jëli. ay chauffeur di ko jëli. ba tey mu ngi tegee foofu ci ci ci ci ci euh, procureur bi pourquoi waa coalition yëpp neewuñu nii. saa waay procureur yow sa liggéey bi yéex na kaay wuyu ñu ñu ñu lu tax liggéey bi yéex. loolu nag moo jaroon commission d'enquête parlementaire. <laughs> lu tax mille milliards yooyu vraiment. tax sama naatango yi wax ni way dañu war a wóolu commission d'enquête parlementaire mais bala ngay wóolu rapport commission d'enquête parlementaire ñu nekk ay parlementaires yoo xam ne comme ni nga ko waxee soxna Awa léegi du ñu wax lu président Macky Sall bëgg loolu la ñu bëgg. ñooñu nekk tuñu ay parlementaires bay bay président. nan mhm. ñu leen joxoñee dem leen. liñeenti mbirum Pierre Edouard ñu ñu sonn la sonn la bu ñu bëggee weexal keneen ki ñu weexal ko ba mu weex taal loolu mooy parlementaire man gëmuma rapport commission d'enquête parlementaire bu parlement bii def déjà commencé nii nii. am nañu a annoncé la couleur. nee na juge yi moom du ñu ñëw kenn du leen man du UMS moom euh, kii kii parce que UMS aussi. Hmm. ñoom dañuy waaf ci ay questions ah. ah dañuy waxante dëgg ah mais oui. Mm -hmm. pourquoi waxuñu ni rapport Covid mille milliards bi dafa yéex. pour pourquoi waxuñu ci yeneen cas yu yu grave yi choisir seen combat dañuy choisir seen combat syndicat la mhm. <laughs> ils de des sénégalais comme tous de nu assemblée nationale amee seen i gars yoo xam ne loo fa bëgg a laal rek ñu bloqué UMS man noonu laa gisee seen système ba ñu woon ma leneen li nañu wax ci mille milliards bi na nañu wax ci yeneen yu fii xew yoo xam ne xam nañu dafa laal justice bi ñu ci waaf du la juge dem a dit je démissionne d'une justice qui a xam nañu bu kenn nax <laughs> waaw dinañ jël suwaat awa si kanam ci question d'actualité yi bu ko laajee. mais ñu dugg ci rek ci présidentielle bi. les motivations de votre candidature bëggoon nañ ko xam d'abord. mais man dama leen expliquer que dama mener un combat. Mhm. toute ma vie moi j'étais de la gauche. temps mhm. mhm. xam nga bokk ci pour gàttal ànd jëf PADS bokk ci ñu sos APR ñu ne. comme ñun ñu net après les indépendances amul benn xeet bu ñu gën ci kaw suuf dañu war a taxaw gëm suñu bopp liggéey pour dab yeneen xeet yi ndax dañu yàgg a troxal daf ñu ay jaam coloniser ñu lu ne biir nañ ko donc ñun suñu génération moo war a xeex loolu ñu dem askan wi